mbaax mbaax la rek ci kër Seydina Limaamu loolu la nu yàlla nattoo Daawda man su ma nit magee ci kër gi benn bis sax dinaa fexe nit ñi xam ne kii mooy sama mag loolu ma yàlla nattoo ndax ki may àndal muy bàyyi njiit général loolu ku xam dara xam ne loolu yàlla may na ko muy ku ko kilif rek jox na la la nga moom ba ci sunu njaboot gi sax damay rus sax naan samay rakk ndax sunuy nawle la no kon nag euh, sëriñ bi jërëjëf li am solo rek mooy daanaka wax ji rafet na bay jaaju li ma yëg tey mooy ci kàddu sëriñ bi mooy sant leen yéen bureau bi nga xamante ni ni ko sëriñ bi waxee ku leen jege xam ne noppaliku leen benn yoon te li ci gën a neex ñun njaboot gi ñu xam ko mooy dafa am lu lu leen dénk ñii dafa am lu lu leen dénk Serigne Magon kay wax 1952 la Serigne Ablaye sos lii ci ndigalu baaya bu tedd ba soppeem ba léppam di sunu maam ma joon kon nag ndénkaale la boo xamante ni ñoom ñii luñ ci mën a def itam Sunu jele xalaatu njaboot gi dan dañuy dem diisoo kilifa yi loolu ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel ndax Pape Daaro jërëjëf Cheikh Sarr jërëjëf ndax damay toog fii ñun ñëpp ànd ak général li mu digaloon groupement central ñun ci ciy liggéey à cent pour cent ñu bàyyi leen xel te di leen déglu loolu général toog na fi ba di ka wax kon ñoom la leen sëriñ bi digal ñu waaye ñun ñu bàyyi xel rek ne gis nga kilifte fu mu amul anarchie rek a fay am kon nag ñu fexe ba nangu kilifteef ndax soo demee ca téere ba dafa ni imam Baye Seydi mii su ko sëriñ bi tegee fii ci Bargny ku am xel di laayeen ci Bargny soo gisee Baye Seydi imam danga wër war a yëg ni xalifa bi laa gis loolu bokk na imam jàbbe ci li ñuy dimbali kon loolu ñu bàyyi ci xel fexe yar ci njaboot gi yar ci dëkk yi xam ne ñii ñun ñi leen jege li ngeen fi wax yépp ñoom ñu ngi ci détail bu ngeen fi wax rek ñu ngi ci di ci waxtaan mais faw ñu nangu ni àdduna moo soppeeku ni ko sëriñ bi waxee xoolal mag mag ñu nu rax lenn rek la ñuy ñaan mooy yàlla gën leen fi yàggal te dolli seen wér ñun ni ko sëriñ wax rek ñun xale ñu gën a takku rek fexe yor ngëmu mag ñi yor ngëmu mag ñi ku xam sëriñ Ablaay borom diplôme jaaxalu ko woon xam nga nit loo am diplôme am ouverture ci àddina te amoo kilifteef amook taalibe doo dem ñii li leen dimbali mooy ci tënk ci kilifteef ak ndigal rek moo leen jàppale kii xalifa Baye Mamour Jaxate alaaji su ko xool mu wone boppam mais ku ñëw ngaa xam bañ naka ba ay rakam lay jiital gàmmu gi dina tàmbali ba jeex doo dégg kàddu bay sey naa te moo ilif nag moomoom moom yàllaa dogal loolu di leen sant ci ndigalu sëriñ bi su ma nee sëriñ bi nag day déparé ci xalifa bi ak ay rakkam ak ahlu bayt bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw diine ji njaboot ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñaar rek tax nañu sant leen sunu ootee ngeen ñëw sunu laajtee ngeen joxe loolu ñun ñu ne ci liggéey bi xam nu loolu ku xool ñaan yi ku xool gàmmu yi ku xool fédération xam ne mbooloo maa ngay yokk mag ndaw kon loolu kilifa ku ko war nga sant sa njaboot soo leen oowee ñu ñëw soo leen laajee ñu joxe kon nag xalifa ak ki mu dénk liggéey bii di général mu ngi leen di sant di leen gërëm ni mu sant waa fédération bureau bi noonu lay sant diine ji yëpp waaye di sant yéen ñi nga xamante ni ni ko sëriñ bi waxe yéen ay kare mu dëkk ya ñu óolu leen jiital leen ci dëkk ya ngeen di ñëw ci ndigalu sëriñ bi di taataan xibaar yi ak di indi ay xibaar di ko càmbar kon yéen sëriñ bi nee jër ngeen jëf yàlla na yàlla dolli seen xéewal may leen wér te taxawal leen te yàggal leen sant nanu leen de ni ko sëriñ bi waxe papa Gueye nga ne gaa yaa ngi nii ay kilifa rek a fi toog waaye xoolal li Seyna wax daaw da wax ko rek tey fu ne nit jóge na fa ba Ndanda ba Ndar kon ñun waa Kër Maam Haram na ngeen yëg ni teguwaay ba leen kilifa ya tegoon foofu rek lañ leen di teg ñu xam leen fan lañ leen di teg ñu bañ leen xam fan lañ leen di teg message bi bàyyi jin yónni Daawuda mooy la mu wax ngaa xam nanu bëggante Pape Cissé nanu bëggante Papa Ndiaye nanu bëggante nanu bëggante te muy dëgg ci ñun nanu yéenente jàmm nanu suturaalante nanu nëbbalante ay ayib Badou docteur bàyyi laay nee na nanu nëbbalante ay ayib nanu dimbalante nanu suturaalante nanu jàppalante nanu yiirante ñun ñëpp ñoo bokk jëmuwaay Pape Samb ñun ñëpp kenn rek la ñu bëgg di Seydina Limaamu ñun ñu toog ñëpp bàyyi laay jaranoon suñu bakket kon nag la wax ngaa xam jërëjëf Daawuda ndax nga nekk tout tànk nekk ci biiri kilifa ñu wóolu ngay vice présidence ñu jox la seen kàddu te bis bu jot ngay rafetal di ko teg ci yoon waaye ci kàddu bay jaaju ak ñun sang jërëjëf li am solo daal ba papa ji wax na ci ñaan gi mm-hmm. nanu nëbbale ayib nanu nëbbalante ay ayib nanu nëbbalante rek ay ayib foofu la àddina toll wax naka de te bàyyi Seydi Thiaw borom ñaan nga moo ko daan wax ñunu jépp dañuy moytu jéppante nanu góorgóorlu kenn bañ a seetaan sa moroom nanu jàppalante nanu dimbalante nanu bëggante ñun ñëpp nanu fexe ba ku gis moroom defe ni moo la gën ñun ñëpp laa wax ku ci gis sa nanga na yaakaar ni moo gën daawuda ak barñi imaam yi jërë ngeen jëf barki démba seen xew mi ci bayraan ñëpp kontaan nañu démba waa Tëngéej ñaanu Baye Seydi Thiaw ñëpp kontaan nañu dëkk bu aye rek noonu rek la li ngeen fi wax yëpp nag ci tànta yi gaa yaa ngi ciy liggéey de bàyyi nji daadaa ngi ciy liggéey allah ci ngi ciy liggéey lu xew bàyyi nji kay yëg su paree rek oo ma téléphone demal toppatool ma loolu daaw de leen rek la may wax bu dara yàqu ñaanal bitim réew seen taxawaay ci diine ji rafet na seen contribution ci diine ji rafet na muy diaspora bi yëpp njabootu Baay Laay ga fa ne góor ak jigéen diine ji yëg nanu seen taxawaayu rafet ya ngeen fa taxaw na ngeen taxawoo diine ja taxawoo fa njaboot ga xirtal leen ci jaamu yàlla fonk seeni way jur waaye xirtal leen ci li nu am ñu koy bokk ak diina ji diina ji yëg na ko président wax na ko Daouda Mbaye wax na ko kon nag lii ngeen am ci yéene yàlla li ko yàlla mottali kontaan nañ ci yéen ci ndigalu sëriñ bi ndax fu ngeen manti ne rek ñu ngi leen di bàyyi xel waaye canta gi ak gërëm gi teg nañ ko ci njabootuk Seydina Limaamu ga nekk ak yéen foofa fu nu mën a ne rek ci diaspora bi diine ji sant nañu leen gërëm nañu leen ndax gis na ni ngeen di tale njaboot gi ci diine ji Badou Gadiane sànq daf may nuyu ne ma sëriñ bi ñun de léegi ñooy magu ñooy magu malika yi mooy li magu wax xoola génération yi rek kon ñun suñu xel daal na président sa xel daal na mag ñaa ngi nii waaye am nañu ñu leen aw te ñoom taxul ñu toog ba Mahdi yu wootee gaa jiitu woon danoo ba yi noo ngi daw may daagu ndax man boobu rek ngay yóbbu badu badu boobu rek ngay yóbbu ba Mahdi wootee gaa yi jiitu woon danoo rawee ba tey noo ngi daw may daagu ndax man dinaa demee yàlla yàlla yàggal leen sunu biir rek te oyofal yaram yi waaye yéen it yàlla ngeen leen ci ay réalisation ci ay taxawaay na dëkk yi na projet yi jóg li ko daaw da mbay liggéey leen jege gaa yi rek gaa yi amuñu xaaj ak seen de Cambérène ak Fatick la nu yamale de ñii Cambérène ak Fatick yamale ñëw leen toog ak ñoom wax leen li ngeen bëgg ndax diine ji su jugee Fatick ñun ñoo koy bëggee su jugee Ndar ñun ñoo koy bëggee kon nag ñoom am nañu ay projet dootuñu bàyyeeti ba groupement central jot ñu leen di gis dinañu ut programme boo xamante ni at mu jot dinañu fexe donte le juróomi localité la ñu ñëw yendoog yéen su boobaa lu ngeen am ci kilifa administration ak autorité bu mu mën a doon réaliser ak lépp ñu saafonte ji ak ñoom ñu xam ne yéen ñii la xalifa bi teg ndar yéen ñii la xalifa bi teg Fatick feneen ak feneen loolu ñoom ñu ngi ci te dañ ciy waxtaan kon nag yàlla na yàlla mottali lépp yal na nu yàlla fayal bàyyi laay kon ñu tàllal loxo bi sëriñ bi ñaanal no يالا ديفال لين جام ديفال نوكو نيون نيب بركه سيرن ابلاي يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم